quotidienne, deux jours de repos consécutifs. Merci. Très bien on y va pour la météo du jour donc euh, pas de changement toujours diggante barki démb ak tey euh, on a un petit peu de fraîcheur donc qui arrive sur euh, la partie côtière ñi dëkk ci booru géej gi ba tey euh, sont avantagés par exemple li nekk ci dëgg digg réew mi jëm penku moom c'est toujours de la chaleur euh, qui est de mise hein dañ koy fanaanoo ñoom yeewoo ko si vous regardez bien les températures donc à l'intérieur des terres la chaleur elle y est bien non magasinée moo tax fajar yeewu ñuy euh, yeewoo température yoo xamante ne dañuy toll ci 32 degrés 22 euh, mooy bi gën a tuuti à Dakar 29 à Saint-Louis 24 pour Ziguinchor donc ci asamaan si maanaam wàllum. Euh, nébulosité le li soxal rek asamaan si comme je viens de le dire euh, daanaka dafa xaw a muuru toujours tuuti on va dire il y a un petit peu de nuage ci asamaan si xaw leeragul. Mm. mais vous allez voir que ci digg bëccëg bi ça va se dégager petit à petit mais on continue quand même avec cette chaleur. Mm. Euh, qui va persister hein. 45 degrés attendus à Kaffrine dans l'après-midi c'est la température maximale euh, aujourd'hui 43 à Diourbel ñu dindi rek Saint-Louis dindi Dakar dañuy gis ne que li des ci réew mi yëpp les températures 40 à 45 degrés Ziguinchor 42 41 ca Matam 42 pour Kédougou et puis 30 qu'on retrouve à Dakar la température la minimale dite mini euh, des mini donc jant baa ngoog fa nar a fës sur la totalité du territoire euh, avec quelques fins voiles nuageux donc cet après-midi qui euh, n'auront toujours aucune conséquence sur euh, au niveau du soleil donc comme ni ma ko waxee rek jant bi dafa nar a fës toujours on y revient de temps en temps dépigmentation bi naaj baa ngi nii di dina teew sera toujours là ça ne matche pas donc euh, jël leen seen matuwaay jox na wax nañ leen lépp jant bi du bouger il sera toujours là euh, àndul ak euh, der bi ça ne va pas du tout cancer bi tout ça on vous l'avait dit il y a quelques jours en arrière bàyyi leen ci xel c'est meilleur pour la santé disons ñu dem xooli ji donc géej gi 15h56 euh, donc marée haute et puis la marée basse euh, en fin d'émission 9h15 puis 22h5 euh, 32 ci guddi gi lay doon houle bi moom maa ngi woy di ko topp c'est pas encore en formation mais. Euh, je pense que ça va se former puisque ngelaw ba tey ça fait plus de cinq jours euh, qu'on est euh, sous ñu jeexalee ko jant bi puisque 6h46 ci la fenk 19h26 est prévu le coucher du soleil et c'est ce qui met un terme à ce premier bulletin ci ñaareelu pàcc bi incha allah ñu daal di ko tënk comme ni ñu koy defee saa su ne à tout à l'heure et excellente journée à tous qui vont au travail ak jërëjëf. soxna Fatou. incha allah merci beaucoup mu nekkoon météo bi ma fàttali mbokk yi ne ci kanam tuuti ay booru 8h20 daañu tàmbali jàngat bi ànd ci ak El Amath Thiam moom nag consultant en droit la jiite itam euh, justice sans frontières euh, lu jëm ci gan gi daañu waxtaanee tàggat.